الخير والمفاسد الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاسد الحمد لله الذي يجازي من أحسن الخير والمغازي وسلام على الدعام وآله وصحبه الخدام هذا وإن اليوم زور هدايه وزور رحمة لهؤلاء لذاك قلت دائما من الكريم جزاهم بجاه الجاه العزيز asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokk taalibe Fallou Gallé Sylla del siwaat na ci seen émission bii di Touba ma yónni tey jii ci gaaw bi yemoo ak fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre de le 16 décembre mbokk yi ñu ñëwaat ci rubrique bii di Touba ma yónni ne ci guy mbind fi ñu nekk ci guy mbind mooy lan boo jógee guy mbind jëm si kër sëñ Bass Xaadim Awa Ba boo tourné ci tëli bi jëmoon daral wuti corniche tëli boobu ci laa taxaw mbokk yi xool leen ko waaye duma ma ci tali bi de mbokk yi xool leen kër yi xoolal barax bii ci biir kër la nekk de xoolal ndox mi borom tuxu na xoolal gëneen kër gii borom tuxu na xoolal kër gee borom tuxu na ñeenti kër ngi nii yu ma jàkkaar loolu yoo xam ne yëpp seen i borom tuxu na waaye leen naa tuxu gi waaye bokk yi barax bi ndax wóor na ci biir bu dëkk lii kuñ na jësika ngi ci doo ko weddi de kuñ ne am yeew a ngi ci doo ko weddi de ndax jàpp nañ yeew ci biir tubaa ci biir barax bu mel nii bokk yi lii ndax da koy seetaan ba kañ ñii de amuñu fenn fuñ jëm ana kan moo leen war a xettali ana ñi nga xamante ne bii ci biirub état lañ nekk de toujours dama koy wax am ay sénégalais lañ yu ne ci biirub état am commune bu ne ci biirub département ne ci biir ab région ba tey ñu bàyyi suñu dëkk mu mel nii mbokk yi lii kan moo koy saafara kan moo ñu koy saafaraal seen mbokk taalibe de Fallou Galass Syll de moo fi ñëw Touba yónni waat ko rek aw ma leen lu ma ciy wax de du sama njàmbat dëkk dëkkuma wet gi maa nga ba Daaru Salaam waaye Touba ma yónni di ma liggéeyloo ci mbedd yi nga xam ne moo ne ci biir dëkk bi mbokk yi ndax mbedd yi dañ koy seetaan nii rek ba kan moo ko war a defar lii lii lan la xoolal lii yooyu yi ci nekk xoolal li ci nekk ci microbe ñi fi dëkke ana kan moo yor seen wàllu wér-gu-yaram bokk yi daal lii ñëpp ci war a jóg taxaw seen bokk taalibi la Fallou Gallas Sylla tey jii ci samedi ji yemoo ak le le 16 décembre Touba yónni waatoon ko guy mbind maa ngi leen di joxaat rendez-vous ci beneen épisode wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. مع السلام القلبي